waaw gannaaw ba ñu santee suñu borom di sant ñi fi teew ñëpp euh, di am mbégte ci daje fii ak yéen encore une fois euh, at bu jot dañu baaxoo ñun parce que ñun dañuy fonctionner en tant que responsable politique dañuy fonctionner comme parti politique euh, dañu am agenda annuel agenda annuel bi ci la lii bokk ndogu bi tey bi nga xam mooy symboliser rencontre Euh, Cheikh euh, maam Cheikh Ibrahima Fall ak Serigne Touba ñu koy def at bu jot cinquième année baa ngi nii euh, beneen rendez-vous bi ci topp mooy bi nga xam ni ci moom la ñuy jëm après muy vacance républicaines clôture ba dañuy organiser lu mel nii jagleel ko xale yi war leen a neexal pour woyofal rentrée scolaire seen seen jur yi beneen rendez-vous bi mooy le 3 mars donc ñetti dat yooyu ñun bu ñu ko kenn xeebal moom la ñu am ci la ñuy woo suñu ñooñ woo ci suñuy responsable woo ci suñuy nawle woo ci suñuy woo ci ñëpp nit ñi di jógee fu nekk délégation yi tey fu nekk lañu jóge ñëw fi waa Dakar a ngi fi euh, waa waa waa Xombol a ngi fi euh, waa Jandeer a ngi fi ñëpp a ngi fi donc sant nañu yàlla bu baax a baax bi ñu munee taxaw tey ji bay organiser lii ba nit ñi ñëw wuti am nañ ci mbégte bu baax a baax. <laughs> Euh, mobilisation bi boo xam ne aussi xamuñu kan mooy njiit. dëgg la euh, waaw dëgg la xam nga xam nga njiit moom euh, njiit suñu borom moo koy def xam nga dafa am sama benn xaritu géwél bu doon wax ne topp leen ma rek jar te fàq yar bis bu ñu la waree topp rek dañ lay topp kon affaire njiit affaire leadership jar te xëccoo fii ku nekk xam na sa ku nekk xam na sa bopp parce que mënoo fëgg sa dënn ne nga. ba nga doon responsable sous ce fait là koy prouver la politique pour ñun politique yëfi yëfi yëfi ci mbedd mi la nekk du ci biir néeg yi du ci salon yi du ci du ci big fin du ci du ci du ci les délices politique ci mbedd mi la dangay dem ci nit ñi waxtaan ak ñoom seeti leen jëflante ak ñoom. taxaw ci seeni soxla boo ca mënul taxaw pour fajal leen ko itam nga won leen ne seen soxla bii kat sama soxla la ndax lool la ñu politique loolu lay tekki pour ñun alors kon tey jii ñun dañuy rafetlu euh, lu demee nii euh, nit ñi nit ñi ñëw nañu tubaarkàlla ndogu bi ah euh, commencé gul sax parce que nit ñi ñëpp ñëwaguñu parce que am na njóobeen yoo xam dañuy bàyyi bu mu des tuuti ndogu rek ñu doog a ñëw donc kon fii tey ji vraiment ñu ngi ñu ngi sant bu baax a baax a baax ci teewaay bi unité bi nga xamante moom la ñu wax ci suñu parti. ah wax dëgg yàlla kilifa yi bari nañ ci parti bi mais man benn kilifa rek laa gis xam nga Babacar man du ma organiser bay wër ci kenn ne la kaay jàppale ma ci lii may organiser xam nga kan laa ciy wax. dama yaakaar ne man président Macky Sall laay liggéeyal ak suma parti APR keneen ku gëm ne que yow war nga liggéeyal président Macky Sall boo gisee ku koy jàppale war nga koo jàppale waaw waaye yàlla dafa dogal ne Thiès nag moom ku jiitu dañ naan non bàyyi ko bàyyi leen ko rek mu dem comme mën na na dem waaw ñun nag suñu borom def na ne ñun ay Baay Faal lañu lu ñuy xuus rek gëm nañ ne dañuy yegg waaw ci loolu la ñu ne ah ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax mbir yi nag métti na euh, comme ni nga ko xamee ah, suñu parti euh, noonu lay doxee waaw euh, responsable yi nga xam ñoo war a taxaw ah yenn saa yi dañuy dañuy yónnee dañuy yónnee mais jëmm yi ñoo am solo ñëpp yónnee nañu ñëpp yónnee nañu ñi ñëwul yónnee nañu dañ koy rafet lu baax a baax a baax te lii moom moo ñu jox ndam bu ñu booloowul du ñu dem. histoire récente bi wan euh, récente bi wane na que su booloo rek dem bi ñu booloo yëpp gis nga xaw nañ fekk waa waa ji ci élection locale yi mujj euh, gis nga ne ak référendum bi xaw nañ koo yóbbu foofu te danañ ko jekkali nag bu ñu ci euh, élection yi di ñëw. waaw xam nga diil xam nga moom dafa newoon dafa newoon diil moom dafa newoon affaire bi diil la biñ demee ba ñu bàyyi Karim. mu ne affaire bi deal euh, euh, international mais après am na yenn yu xew ci kanam te ñëwagul xam nga moom xamu ko bu buñ ci yeggee day tiit mu ne léegi deal mondial yeneen ñëwaat yoo xam ne yëgu ko mu ne bii deal universel day dem moom ci ay moom moo xam luy diil mais président Macky Sall yàlla dafa dogal ne suñu teg su réew dafa teg ne président da nga am yow pour pour pour libérer ay nit bàyyi ay nit ay ñoo xam ne da leen arrêté woon. daf ko ko yoon moo ko may bi at bi teroog léegi euh, libéré na ci gracié na ci coobareem ci lu ko yoon may gracié na lu ëpp ñetti téeméeri doomu aadama yu nekkoon ci loxo alors tey jii bu ñu demee ba Karim bi nga xam ne dañ koo jàppoon tiye ko ndax dafa ñëw dañoo njortoon ne dafa yoon dafa atte woon ne dafa luubal alalu réew mi ñu xayma alal jooju ne nangami limi milliard la da koy fay président Macky Sall ne moom comme weeru koor la ñu toll te jullit la te kilifay diine yëpp ñi nga xam moom ñoom la yaakaar ci ci Sénégal woo nañ ko ñaan ko njekk ak teraanga ne ko war na koo mën a bàyyi mu ne moom day li ko intéressé du sax téye ko waaye li ko intéressé mooy alalu réew mi yoon atte ne mu ngi ci ndoddam bu tànk nangu na koo fay de Karim nangu ne dana fay cent trente-huit milliards kon moom gisatul lu tax mu koy téye ci loxo loolu mooy waree grâce bi te loolu moom coobareem la ñu ne du lool yëfi politique la waa kan moo mën a tere président de la république def mais Macky bu deful politique kon lu muy def ci bopp réew mi dañuy politique nag dañuy politique mais dañu koy teg ci yoon yéen ñii xam nga ne loolu tegu na ci yoon parce que grâce moom moo koy yelloo moom moo koy man mënu maa gracier kenn moom lool yoon moo ko may donc euh, loolu li ci des nag nañ politique ñoom ñoom ñoom ñuy wax dañuy politique deal universel danañ ci yegg parce que am na yu koy bett ci kanam euh, Thiès moom euh, defar ko wala ànd ak ñi koy defar képp képp ci laay nekk mënu maa mënu ci leneen parce que dama ko bëgg Thiès waaye dama taseeg waa joo xam da koo bëgg lool itam muy Talla Sylla Talla Sylla dafa bëgg Thiès quoi xam nga dañu ko dañu ko dañu dañu ci yam ci loolu moom dafa bëgg Thiès yàlla dogal euh, waaja doon diil nag diil ba diil ba diil ba mooy nag rëcc loxo yi mu ne Talla jël mairie baa ngi nii waaw Talla jël mairie bi di liggéey liggéey ngéwél di fi def loo xam ne kenn musu ko fi def depuis Ousmane Ngom ba léegi nag waaw sans nag joxuñ ko xaaral ñun xam nañ nu mu demee laalul dara te muy góor góorlu mu ngi dem ci nit ñi di leen masaw di wax ak ñoom mu ne léegi comme waa ji daal mu ngi koy waaj a laa la vedette li tubaab di wax ravir la vedette maanaam euh, këpp yàlwaanam ah mu commencé di xeex ak moom ñun taal si la ñaandal dama koy wax fii tey taal si la mooy suñu maire ku ko laal di nga ñu laal bokkuñu parti nag mais ñun kees la ñu gëm yaakaar ko am ci luñ ci bëgg lool am ci lu baax luñ ci namm. mais ka ko dénk maire bi ko dénk maire bi dafa juum dénk ko ko ak waxtu wi billaahi ak waxtu yi damaa woor wér na ma ne dafa jumbam bam ku koy dénk lu leer laa la wax de dafa juum ku koy dénk parce que ay néegi biiram néegi yi eh, nekkaaleem ay nit yi néegi biiram wax nañ ko ne lii erreur la ba mu nangu ne moom loolu erreur la bu tey bu doon tey du ko dénk waaye nag sunu borom mooy organiser nit ñi dañu fàtte moom ci boppam dafay fàtte ne yàlla moo yor programme fal ak fol yi président Macky Sall yàlla moo ko jox lii te dana fi def diir ba ko yàlla joxe. kon nag moom na toog xaar ba yàlla noppi ci suñu ngóor si mu jël bu fekkee moom dana jël parce que gis naa ne gars yi réew mi ñu ko soxla dafa bëri de waaye nag soxla ko taxul nga mën koo yor te ñun suñu réew mi duñ ko caaxaane waaw loolu moom bëgg naa ko woon euh, yokk ci barkeelu bi maa ngi sant ñëpp nag. di gërëm militant yeeg mbokk yeeg am di jàmm yi fi teew yëpp jóge fu sore ñëw fii jàpp ci tey seen teewaay rek la ñu soxla woon am na ñoo xamante ne ñëw nañu mënuñu woon toog mais ñëw nañu ba kër ga ñu toog waxtaan ba ki yaatal ñu dem mun naa ci lim kenn ku ñuy wax Ndeye Tike Ndiaye suñu benn jigéen boo xam ne gan la ci euh, Thiès ñëw na euh, def délégation bu mag jaar fa siyaare ñëw dem maay également euh, le ministre Augustin Tine Euh, moom dafa nekk ci ay xata yéen a nekkoon sax ba woo woote na euh, waxtaan nañu lu yàgg a yàgg euh, nee na ma bu fekkee moom pare teel na pare li muy def dina ñëw parce que moom daf ñu jàppale ci koor gi waaw donc ñoo ñëpp ñu ngi leen di xaar dëgg daf ñu jàppale ci koor gi ñoom ñëpp ñu ngi leen di xaar alors affaire bi daal mu ngi noonu ndogu bi ndogu ñëpp la du pour man du pour kii du pour militant APR yëpp ñëpp a ngi fi waaw waaw li ma ci dépensé moom ñun duñu dugg ci ay considération alal parce que Euh, lii moom euh, ku ñuy wax euh, wax dëgg yàlla su ma su ma ministre bi may liggéeyal Mame Mbaye Niang dama koy delloo njukkal parce que moom ak Talla la laa ñu tudde bis bii tey alors dañ ko ci delloo njukkal bu baax lépp loo xam ne maa ngi koy def Thiès daf ci taxaw bu baax a baax taxaw na ci ci léppam lépp lépp da ciy taxaw waaw donc moom daal am nañu yaakaar ci moom euh, vraiment ñu ngi koy ñaanal yàlla di ñaanal yàlla itam kilifa yi fi nekk yëpp euh, kilifa yi suñu kilifa yi nga xam ñu ngi Thiès euh, Augustin Tine Thierno Alassane Sall Omar Diop DG Sarr Siré Dia docteur Ndiaye mais kilifa yëpp yëpp ñu ngi gërëm ñëpp di san ñëpp ministre Ibrahima Ndoye gis nga ko moom musul tardé dara moom moo tax dañ koy fàtte sax duñ ko limaale waaw vraiment moom yàlla na yàlla yokk jàmmam yokk ay ndombam ba mun a gën a taxaw jandeer nga xam ne ba muy rogalaan jëm Thiès waaw euh, alors dañu wax ne fii li ñu def tey jii dafa nekk ci benn cadre benn dynamique bu ñu enclenché depuis quelque temps lu ñu wax la grande offensive républicaine xam nga lu sotti rek am tur moo tax bëgguñu ko tuddee dara bëgguñu ko tuddee bu ñu waxee diw moo ko diw moo ko teg day day kii mais boo demee internet boo tapé grande offensive républicaine rek di xam kan moo kan moo su su su suqi euh, kan moo sos loolu alors ka ko sos nag. wuurul di wax di fëgg dënn moo ko moo ko sos dafa bëgg ñëpp jàpp ci mu doon réalité ñu xam ne c'est une grande offensive que président Macky Sall dafa jot mu yor lépp ci réew mi parce que loolu la askan wi bëggoon ba mu koy jox à 65 pour cent alors ndogu républicain euh, vacances républicaines yi nga xam ne ñu ngi ñëw yóbbu dañ ko def pour magnifier loolu. alors vacances républicaines yi nag dinañ leen woowaat yéen invité ñu waxtaan autour de ce de ce concept là parce que ñu ngi koy de également boobu depuis 2012 ce sera la cinquième édition ci la ñu dugg nii. bu euh, buñ ca yeggee woo xale yi defal leen cours de vacances pendant un mois jàppale jàngalekat ya leen def bu ñu paree xale yooyu dañ leen jox ay neexal yoo xam ne ña ca classé bu baax ña ca góorgóorlu dinañ leen jox lu toll ci ay neexal loo xam ne bu ñu yeggee ci kër ga seen wayjur yi dinañu xam ne ñoom vraiment yombalal nañ leen euh, seen euh, année scolaire pour ñu ko tàmbali ko ci jàmm ak salaam vraiment loolu lañ ci bëggoon wax ñooy sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam